seetaan ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ci seen découverte ak tey nag ñu ngi ñëw ànd ak yéen à la découverte de El nag mbokk yi di restaurant bi nga xam ne maanaam euh, su ngeen ñëwee fii ci Touba la ville sainte da ngeen di mel ne ku nekk Europe parce que milieu bi moo ko laaj suñu découverte tey nag ñu ngi ñëw fii ci El Dassy ci restaurant bi nga xam ne mi ngi nekk fii ci Sis Total kër Khadim Sy Laye Frère mu nekk ñu tuddee ko restaurant El Hadj Dame Sylla di benn restaurant boo xam ne nii lépp lu ngeen soxla muy place bi nga xam ne moom la ñu réservé ci wàllu conférence ci wàllu débat ak ci tamit lu ngeen yittee ci wàllu restauration da ngeen ñëw fii nga xam ne moom mooy El Dame ñu toog ak nag fi euh, nga xam ne tey moom mooy le gérant di Abdoulaye Kébé. gannaaw bi ñu ko ubbee depuis donc le 8 août 2018 muy 8 8 2018. un an yi nga xam ne donc dund nañ ko ci maanaam réalisation avancement yi nga xam ne am na ko ak euh, découverte bi nga xam ne nit ñi def nañ ko milieu bi naka la ko nit ñi dundee loolu yëpp nag dana ci waxtaan ak yéen fii nga xam ne moom mooy place bi ñu ñëw tey ci LDAS yi Abdoulaye Kébé maa ngi lay nuyu. Sidi maa ngi lay jaar. am nañu mbégte bu baax dalal la ci suñu émission découverte ci 28 Pro. tey soo ñu mën mën wax Eldassi bi ñu ko présenté d'abord moom mooy lan ak ñan ñoo taxawal li xam ne moom mooy projet bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk téléspectateur 28 pro ñoo leen di nuyoo fii ci Eldassi nekk ci yoonu Mbacké station Total Kër Khadim premier étage waaw Eldassi nag euh, li ko tax a jóg mooy dafa nekkoon xalaat boo xam ne si. bu yàgga yàgga yàgga yàgga mbébét la ba yàlla dogal ko mu nekk une boo xam ne si benn soxna bu naan Fatou Ndiaye Sylla nekk doom ci Alaaji Daam Sylla moom moo ko am mbébét ko doxal ko taxawal projet bi ba projet bi toll fii nekkatoon nag lu lu yomb ndaxte mën naa wax ne restauration fii ci Touba gérer ko fi dafay xaw a métti ndax Touba ak ay réalités li tax mën a Touba ak ay réalités mooy Touba nekk na dëkkub xéwal boo xam si tey gan gu fi ñëw rek la plupart ci kër yi ngay dem doo am possibilité di dem ci resto yeeg et cetera waaye ti mënoon a wax ne euh, restaurant bu tax ñu naan resto amu foon parce que la plupart ay fast food ñoo fi nekk ak ay gargote nit ñi danañ am problème tey nga am sa gan war a mën a wéet ak moom ngeen toog waxtaan confortablement pour ñu trouver euh, une place idéale duñ ko mën a am. loolu nag moom moo développé sunu xel de telle sorte que ñu ne pourquoi pas euh, fii ci boutique Total Kër Xaadim nekk ci suuf pour ñoo mën a def un agrandissement ci kaw ñu war fay def benn resto kon xalaat boobu la soxna si déparé. Ah, mu def étude du projet ba tey yàlla def mu toll fii au bi nag ce n'était pas du tout facile parce que tout commencement est difficile comme on dit waaye on s'est évertué toujours rek ñu xam ne ñun gëm-gëm bi ñu am ak credo bi ñu am ak bëgg a jox beneen visage Touba muy Touba képp koo xam ne si ñëw nga fi rek moo xam ngay touriste moo xam ngay def ziar wala boog leneen ak leneen boo defee say say say say visite ba pare war a mën a trouver benn endroit normal boo xam si tey mën nga fa toog xéwlu fa confortablement pare dugg si oto bi ndànk boo dee dem dagar nga dem Dakar boo dee dem Saint-Louis nga dem Saint-Louis parce que da du leen naqari touristes yi nga xamee ne parfois danañ jóge Saint-Louis wala Louga wala et cetera jaar Touba du mën a am sax fu ñu xéwloo il faut que ñu dem ba Kaolack wala boog Mbuur doo faa mën a xéwlu la plupart bi ñu ko doog ubbi euh, trus yi fi njëkk a jaar loolu yoon wax vraiment ça c'est une belle belle initiative parce que ñun on avait problème que danaa jóge Saint-Louis pour que ñu lekk rek dañuy dem ba Kaolack te trajet boobu xam na gudd na métti na wala ba parfois dañuy jaar ci boutique bi jënd ay quelques bonbons et cetera naan doog a dem peut-être lekk boobu du leen gënal mais depuis boobu wax dëgg yàlla am nañ confort ñëw dugg ci biir place bi ah xéewlu ba pare doog a dem alhamdulilah tey parce que nit ñi ñu ngi ko commencé xam ñu ngi commencé ñëw ñu ngi ciy sant yàlla daal bu baax a baax a baax tey ñaan mu gën a yokk tey lancé appel nag euh, tubaab gi yëpp ñu xam ne bërëb bi seen bërëb la ñoom lañ ko fi defal ñoo doon bëgg tey ñi nga xamee ne ñoom ñoo nekk Dakaaru euh, bu ñëwee fii du nen ñëwee kon mën naa la Eldas yi sagub ñëpp la. sagub ñëpp la alors euh, pour ñu parce que wax nga muy li nga projet bi. nekkoon na benn boutique euh, mi ngi nekk ci suuf euh, ngeen dem ba xalaat ne da ngeen war a def ci kaw parce que euh, y a de l'espace pourquoi pas comme ni nga ko nit jóge ci sori da daan jaar ci boutique bi jënd ay bon wax yooyu pourquoi pas moom mooy li nga xam ne moom peut-être nit ki ci lay gën a amee temps pour noppalu daal déjà toog añ ba suur wala reer ba suur continuer pas jeune mais loolu yëpp gis na ni maanaam c'était donc euh, euh, au ak li nga xam ne moom mooy station bi parce que station bi nga xam ne moom mooy boutique bi moo euh, nga xam ne moom mooy resto bi et ci parce que tamit comme ni a jàppee muy Eldassi parce boo xoolee trajet par exemple wax expliqué ko nekk Saint-Louis xool trajet bi heure nekk dana la yoon bi et que milieu yi nga xam ne dañ fiy jaar mais sur est-ce que donc par rapport ak euh, demande bi nga xam ne moom mooy am. souvent ak dëkk bi ni mu toll. est-ce que am ngeen maîtrise pour gérer li nga xam ne moo fi ñëw souvent du manqué dana dem en quantité dana doy ci wàllu lekk gi ci wàllu naan bi est-ce que loolu prévoir ngeen waaw Sidi euh, waaw loolu moom nañ ci sant yàlla bu baax a baax ndaxte tamit comme ni ko wolof di waxee rek ku ko man ak ku koy jëm mën ñoo bokk. ñu nag yàlla dimbali ñu ba mën nañ ko de telle sorte que bépp képp koo xam ne si yaa ngi fi def euh, réunion wala boo conférence wala boog cérémonie n'importe laquelle boo ñu contacté ñun dañuy bëgg sax def prestation bi d'abord ba pare suñ suñ paree boo ñu fay nga doog a fay te loolu c'est pas évident c'est pas évident nga nga restaurer plus de cent personnes ba pare toog ay 15 jours 20 jours ñu la doog a fay loolu c'est pas c'est pas évident. te loolu bien ñu def séminaire wala boog ñu def ay réunion et parce que tamit bu ñu fàtte na salle de conférence mi ngi à côté c'est contigu maanaam dafa dafa dafa apparenté ak réseau bi da ngay ñëw dugg ci réseau bi boo paree jàll ci salle de conférence bi. Mhm. def sa conférence génnaat xewlu doog a dem. Mhm. vraiment loolu moom yàlla mi ngi ciy dimbale bu bu baax a baax a baax. Mhm. suñu clients yi mës a am yëpp. am nañ satisfaction te toujours ñu ngi renouveler seen confiance ak ak ñun. waaw maanaam personnel bi nag euh, c'est divisé en deux groupes mën naa wax ne ñii ci dëkk bi lañ juddoo fi lañ yaroo ñii dëkkuñu fi. mu ne ci dëkk bi lañ juddoo fi lañ yaroo mooy ñii Touba lañ dëkk ñii Mbacké ñii Diourbel ñii des Kaolack ak Dakar kon booy xool euh, xaaj bi ci région bi la muy région de Diourbel. beneen xaaj bi nag ci leen doog a génne parce que restaurant tamit dafa nekk lu exigeant loo xam ne si tey du n'importe kii moo koy def parce que looy xam ne doo ko def nekkul loo xam ne si dangay jóg un bon jour rek nga ne acca je vais restaurer des personnes et cetera déedéet lu ñuy jàngal à l'avance lu ñuy am ay diplôme comme yow ni nga amee dem defe formation en journalisme ba xam ko ba am ci ay lijaase xam ne boo toogee da nga xam exactement li nga def mooy lan Euh, restaurant yi noonu la demee da ngay dem jàngi ko xam ko am ci ay lisaas ñëw boo boo dee def ñu xam ne exactement yow mii li ngay def tandaatoo ko parce que noonu toll jamono joo xam ne si tandaatu ak tatone dafa xewi lépp looy def nag da ngay am main mise bi danga nga ciy teg sa loxo xam ne ñu xam ne exactement lii moom la man mii di wax ak yow bi ma ko soxna si di dénk ma dem defi une dem am samay diplôme ñëw doo ko def sama liggéey de la même manière tamit noonu lañ doxalee ak bi ñi fi liggéey ñëpp mën naa wax ne bu fekkee 10 la 8 yëpp ñu ngi ak seen lijaasa mun ñàkk nag nga recruter ñoo xam si au fur et à ngeen defal des formations ñu xam di kii di di dem di évoluer di évoluer di évoluer waaye grosso ñu xam na rek restaurant surtout métier boo xam si dafay dafay englober lu bari ak ah savoir vivre savoir faire et cetera kon nekkul loo xam ne si lu lu facile la parce que nit ku nekk ngay gis humeur yu nekk ci ngay gis critique yu nekk ngay gis. ba pare restaurant nekk loo xam si maam autoproduction la li ngay li ngay jaay yow yaa koy defar nekkul loo xam si tey da ngay jéggaani ñëw jaayaat comme commerce comme commerce ni mu demee mais loo xam si tey yow yaa koy produire bu neexee da nga dégg neex na bu naqaree lu na ngay dégg tey nit mën na ñëw lekk tey mu neex lool mën na neex na ëllëg mu nekk mun mu xari loolu la nga ko dégg mais loolu da ngay muñ loolu nag bu amul formation bi yaakaar naa ne doo ko effectivement non danoo toll sax effectivement effectivement effectivement parce que tamit loolu loolu loolu mooy jamono parce que tamit nit ku nekk bala moo jóg da koy xam boo gisee yàlla na aalimo nii xam la an taxawu nii xam leen ba bala ngeen maa jaamu loolu tamit day valable pour tout nit ku nekk lu muy jëf rek bu ko xamut euh, pour mu am ci ay résultat yu satisfaisant wala boog ay résultats yu palpable day xaw a day xaw jafe parce que démarche ak méthode ba mu ci war a am pour que mu arrivé en euh, résultat tey du ko du am ce que ce qu'avait Descartes moo demoon di tudd sur la philosophie parce que je suis un philosophe mhm. ce qu'avait dit Descartes discours dans discours de la méthode mon, mon dessein pas ici de montrer une méthode mais de faire combien j'ai pour établir ce qu'on appelle ma méthode addu tamit la da ngay jéem a def sa méthode mais doona méthode bi nii laa koy doxee kon méthode lépp loo gis këru àdduna rek xam ko ba pare doo ko def daf cee baax. d'accord mbokk yi ñu u découverte tey nag mi ngi ñëw fii ci El Daci ñu ngi waxtaan ak le gérant Abdoulaye Kébé sur ce def dañuy daal di ñëw que lépp lu ngeen fiy defar yéen a koy defaral seen bopp maanaam yéen a koy produire seen bopp est-ce que tamit euh, da ngeen di consulter ay nutritionnistes yoo xam ne maanaam dañ leen wax nekk gi ngay defar lii moom lii ak lii ñoo war a ànd wala selon. Euh, yoo xam ne maanaam da ngeen ko gis ci mën yi par exemple copier feneen sur ça. waaw xam nga boo dee jàng restauration la jàngal restauration gastronomique dafa am gastronomique mooy nit ki bu fekkee euh, nekkul régime normal maanaam nekkul nit koo xam si dafa war a lekk comme ni nit ñi lekk mën naa ko soit day suivre un régime végétarien wala et cetera. lan mhm. la koy jàngal. dana kat ngay utiliser. ay salade ay légumes et cetera pour que personne boo xam si suivre régime normal nga xam ko bu defee tey bu fekkee yàlla tere un diabétique ñëw na fii wala boo koo xam ne si du lekk viande rouge wala boog nangam nangam nga mën koo defal loo xam ne si lu adéquat la ak santeem jus tamit nga mën koo composer loo xam ne si day adéquat ak santeem ndax lu ñuy jàngale à l'école bien vrai que nag baax na parce que xam-xam du doy tey nga gis un nutritionniste mun conseil la na la ex nii ak nii ak nii ak nii la def c'est loolu jàngal la. lu weesu lool da ngay dugg ci internet bi parce que léegi daanaka man naa wax dara umpeetut tey loo ci bëgg xam man ko ci xam dugg xool yan plat laa war a concocter pour que. nit koo xam si ñëw na kat lekk du lekk nangam ak nangam ak nangam nan laa dem ba satisfaire ko ba mu lekk bu suur te pourtant la muy lekk lu sel lay doon lu hygiénique lay doon loo xam si tamit day adéquat ak santé si sa euh, dañuy daal ñëw euh, li nga xam ne moom mooy euh, maanaam lekk gi bu ñu ko dee wax maanaam ci sellaay wax nga ko parce que da ngay da ngay da jàng ba pare li ngay composé lan mais hygiène bi. tamit bokk na ci li nga xam ne moom la restaurant gën soxla. Mm-hmm. Euh, naka ngeen ni prévenir li nga xam ne moom moo souvent en cas de d' par exemple souvent dañ koy dégg ci lekk yeeg yooyu ça vous ah, na leen a arrivé ou pas. waaw Sidi xam nga boo dee jàng restauration première leçon la jàngal wala boog man première leçon bi ma jàng mooy hygiène et sécurité en cuisine mooy cet ak sécurité ci biir cuisine parce que lekk loo xam ne si la boo xasee ba consommé. nekkul loo xam si da nga ko def sa poche rek bu la neexee nga génne ko mais luy dugg ci biir la te luy dugg ci biir lu nekk war naa set war naa sell moom moo tax lépp lu ñu fiy togg rek ñu ko teg ci condition hygiénique yi gën a mat yi gën a mat yàlla nag dimbala ñu ba mun ñu fay jaay mukk nit mu ñëw réclame nañu lu ñuy jaay dama ko lekk sama biir di metti wala boog sama sama biir daw wala boog nangam parce que condition hygiénique dañ ciy taxaw bu baax a baax moo xam mooy ci bërëb bi moo xam mooy ca waañ ba mooy xam muy ci nit ñi et cetera dañ ciy teg rigueur hygiénique bu bu bu am doole ndaxte tamit comme que lekk dafa exigeant kon nit koo koy jox rek war na nekk lu set lu sell ba nga xam ne bu ko lekkee wala ba bu ko jëfandikoo du ko indil benn problème loolu nag côté boobu moom wàllum intoxication mu sant nañ ci yàlla bu baax mhm. parce que mosuñu dal te ñu ngi ñaan yàlla yàlla buñ dal te rythme bi ñu ko commencé tamit yàlla ñu ko àggalee ba képp koo xam ne si da nga fiy ñëw rek doo fi am benn jafe-jafe. ci wàllu am euh, nga xam ne ñoom ñoo yore saytu wàllu hygiène. ah bien sûr bien fi ñëw. Euh, ñoom bi ñu fi ñëwee li njëkk a wax mooy l'endroit est propre je me rappelle bien en 2002 il y avait euh, comment dire parmi les euh, les candidats Ibrahima Fall Ibrahima Fall il était venu ici. ñu ñëwee ñu njëkk wax ne li ma gën a impressionné mooy c'est très propre ma ne ko merci beaucoup parce que tamit propriété propriété dafa am solo service jeune dañ fiy ñëw dañ fi def ay descente dana dem ay ay ay ay ay carnet xam nga yooyu ñu joxe certificat certificat de l'hygiène et cetera am nañ ko mu ngi fii euh, comme dirais-je euh, ñi fi liggéey ñëpp aussi dañuy am ay ay certificat boo xam si moom mooy reconnaître ne nit kii ki fi liggéey kat apt na pour man waaw pour mën fi liggéey amul benn feebar boo xam si danañ ko gàllankoor pour mu war a mën fee bañ a liggéey waaw et euh, dañuy daal di ñëw ci li nga xam ne moom mooy la présentation di menu euh, parce que du lundi au dimanche resto bi doy ubbi n'est-ce pas c'est 24 mhm. euh, heures sur 24 mhm. du samedi du lundi au dimanche 7 jours sur 7 waaw 7 chaque jour ak menu la wala semaine bi da ngeen a planifié li nga xam ne moom ngeen di def euh, naka lay demee noonu. waaw ak euh, nan ngeen ciy xalaatee. dañoo def menu de la semaine. menu de la semaine mooy lundi lii mooy am mardi lii mooy am mercredi lii mooy am jusqu'à dimanche par exemple rek lundi. ceebu ceeb bu jën bu xonq moom am parce que ceeb moom c'est en récurrence chaque jour day ñëw ceeb bu jën bu xonq yaasa mardi ñu ne ceebu jën bu weex defa nañ xonq bi passé ceebu jën bu weex domada mercredi ñu ne ceebu jën bu xonq encore maafe jeudi ñu ne ceebu jën bu xonq suppu kànja vendredi ñu ne ceebu ginaar ak ceebu yàpp samedi ñu ne ceebu jën bu euh, weex wala ceebu jën bu xonq def kaldu wala boog sebon wala boog maafe wala boog leneen ak leneen dimanche parfois mbaxal la naan def hmm? ak ceebu jën. da leen def mbaxal ak yaasa wala boog mbaxal ak cuub. waaau loolu mooy waaw loolu mooy euh, bi waaw euh, bu fekkee diine bi la est-ce waaw bu fekkee diine bi bu fekkee diine bi la moom wala dafay varier dafay varier parce que nit ku parce que soir bi fast food bi day dox même matin bi fast food day dox parce que soir bi fast food day dox dibiteri day dox pâtisserie day dox cuisine tamit day dox bu fekkee cuisine bi la dañuy defar ay plat européen la plupart moo xam muy méchoui moo xam muy pare poulet pané wala poulet grillé wala boog poulet pili pili wala boog mu nekk cordon bleu émincé de bœuf portefeuille de bœuf wala brochette mix daanaka yaakaar naa ni ñu koy dégg bëriwul brochette mix wala filet grillé wala brochette de filet hmm, wala boog poisson grillé dañ koy def poisson dañ ciy defar coof dañ ciy defar dorade dañ ciy defar lot te yooyu te yooyu dafa raar. ba pare ba pare waaw ba pare c'est riche en oméga. Mhm. surtout poisson. Mhm. c'est en oméga. voilà dibiterie bi fi mu ne nii defar dibiterie locale. di defar dibiterie awsa. di defar dibiterie dibi poulet. Mhm. yooyu yëpp dañuy am poulet dibi. fast food bi aussi dañuy defar pizza. defar hamburger. defar shawarma. yooyu yëpp dafay am voilà. et pour le bi aussi. pâtisserie bi aussi chaud. pain choco pain raisin pain. pain baguette ak pain eldasi am na benn pain bu ñu woowee pain eldasi xam nga après dama la ko mosal waaw boobu boobu boobu moom sunu sunu propriété que est-ce a commandé waaw si parce que gars yi ñu ngi koy apprécier ah, ñu ngi koy bëgg bon bien vrai que bon commercialise ñu ko de trop parce que ci boutique bi la am rek mais euh, alhamdulilah Euh, gars yi ñu ngi koy bëgg ñu ngi koy apprécier aussi bu baax a baax a baax xam naa ne au fur et à mesure tamit danañ ko gën a gën a yaatal de telle sorte que incha allah Touba gi yëpp ñëpp duñ a jot tamit xaaj bi danañ ci jot bu soobee yàlla bi waaw petit déjeuner bi comme ni comme ni nga ko gisee nii ci kaw taal bi waaw croissant day am ah pain euh, comment dirais-je euh, omelette au jambon omelette à l'espagnol crêpe sucrée wala boog crêpe salée wala boog croissant au jambon wala boog nga am pain choco wala pain pain simple ñu defal la ci euh, comment dirais saucisson wala boog fromage yow daal yaa yow daal bëggal rek yow bëggal rek. waaw ba ñu jox la menu bi. nga xool nga bëgg ñu defal la. wala boo dikkee ne man daal effectivement voilà wala boog nga ne proposé ma une chose. Mm-hmm. waaw dana la proposé loo xam ne lu convenable lay doon. et sur ce ndekki añ reer du tardé par rapport ak le personnel bi nga xam ne moom moo fi nekk on dit souvent l' efficacité effectivement ba pare bon il faut que nit ñi xam ne restauration dafa métti parce que ci waañ ngay liggéey mu tàng ba pare li ngay liggéey nekkul looy def à l'avance cest à que da nga koy préparer ça se fait à la minute da ngay toog ñu defal la parfois nga gis koo xam ne si il ne pas il n'est pas familier avec le resto danaan dafa yàgg te pourtant sax demewul noonu parce que lu ñu prépare lu nekk togg ko bëgg mu jaar yoon il faut que mu jël temps te nit ñi parfois temps la patience boobu doon ñu ko am dañuy bëgg léegi commande bi dugg léegi pare léegi te loolu moom peut-être mun mënut ñàkk loolu mun a am sax mën a wax kon loolu dafa baax nit ñi ñu ci xam bu baax a baax a xam ne métier restauration dafa metti waañ la tu es toujours au chaud ba pare li ngay defar pour mu jaar yoon waaw mu nekk au mun mënoo ko defar à l'avance kon client bi ñëw war a toog xaar au moins war a am benn temps de patience boo xam si ne ko war a mën a. Euh, may may fàttali euh, au début war nañu waroon a foofu la a démarrer. Mhm. restauration exigence de pour parce que société la. Mhm. société bu nekk day am ay norme war nga war nga am war nga am numéro d' identification des entreprises des associations yu ñu woowee NINEA wala boog RC. Mhm. war nga am ci autorisation. ak numéro Fra yooyu yëpp dan koy dan koy dañ koy wut dañ koy am soxna si wut na ko laata muy laata muy defar. Euh, euh, kon donc euh, réseau clandestin. non loolu c'est pas c'est pas parce que le problème en est que tamit munoo munoo woote lu formel. bu paree bëgg a dans l'informel. loolu mënut nekk. dana woote lu formel loo xam nu si c'est première à Touba kon munuñoo. bëgg a yemaat ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ñoo ne waaye ay restaurant ay restaurant te en réalité nekkul dëgg dëgg dëgg dëgg restaurant hmm. voilà découverte ci Eldassi la ñu def euh, wax naa wax na waxtaan nañ ci li nga xam ne moom moo jëm ci restauration bi li ñu war a lekk waxtaan nañ également ci personnel bi ñuy recruter alors euh, lii tamit euh, permettez-moi un peu de déguster <laughs> parce que mu xool ban ban jus la à leur pays. li ngay naan mooy mojito. moom mooy moji. mojito oui. waaw ah. dafa mel ne menthe la. non du composant yi que damay bañ demee nga def du ma ko def parce que du euh, euh, du ma am temps bi. Euh, bii. <laughs> jàppal daal mooy mojito. bi bii jus à l'ananas la ah. ah. que yii donc ngeen am na yeneen. déedéet na yéen def na goyave. am mhm. citron. tamarin. Mhm. orange. yëpp day am. du du du du ci olof yi parfois du forox daal. déedéet vraiment parce parce que bu fekkee day forox ñun bu ñu goûtee xam na lii forox na parce que bu la ñoo jaayee client dañuy goûtee xool ba xam. Mm-hmm. est-ce que ñun li ñu conservé woon. Mm-hmm. ba tey ma nga fa mu nekkoon mu déet. boo amee benn changement dañuy jël tegi na la. alors euh, euh, loolu yëpp waxtaan nañ ci euh, dañuy jaar ci li nga xam ne moom mooy restaurant bi. Mm-hmm. en tant que restauration. mooy dëkk am nañu salle à manger. moom la ñu nekk nii. c' est composé donc de combien de places. Euh, moom nga dikk ci bu defee ñu jàll ci li nga xam moom mooy salle de conférence bi ni ñu ko diviser. lan moo am ci salle bi ak lan la mën a accueillir après. waaw bu fekkee bu fekkee euh, bu fekkee salle publique la. Mhm. ñu koy woowee salle à manger bi. Mhm. mën na contenir jusqu'à soixante quinze personnes. waaw contenance bi soixante quinze personnes. mais am na beneen salle bu ñu woowee salle VIP boobu mën na am euh, huit personnes. maanaam c'est réservé pour huit personnes. mais bu fekkee euh, danoo am ay gan yoo xam si ils sont au nombre de huit euh, plus de huit. mën nañu ko changer c'est-à-dire décor bi ñuy changer jëndi fauteuil yi defaat yeneen chaise de telle sorte que ñoom danañ fa mën a nekk à l'aise à leur nombre. ci VIP bi ci VIP bi. mais bu fekkee salle conférence bi la moom sa peut continuer jusqu'à cent cinquante personnes. avec possibilité d'augmentation. mu ne 150 personnes c'est-à-dire que 156 ñoom ñoo fi nekk boo ko tegee ñëpp danañ toog. mën nga am aussi possibilité augmenter ko c'est possible. ci biir saal bi nag am na matériel audiovisuel mooy sonorisation ma nga fa. Euh, projection aussi ma nga fa. ay chaises yu confortable ma nga fa table yu confortable mu ngi fa le décor aussi bon. veillé nañ ci bu de telle sorte que moo xam muy bëccëg moo xam muy gudd saa soo bëggee projeté da ngay projeté facilement te doo am problème lumière wala et cetera euh, euh, leen a arrivé ngeen utiliser euh, nit ñi utiliser salle bi mu dem ba dépassé nombre de places yi ngeen kii ban lan moo nekkoon seen réaction ak lan moo leen jaar lan ngeen ko résoudre parce que loolu ça nous est arrivé lors des élections mm-hmm. xam nga politicien parfois. ñu ma jégal ah. lan lay wax ak euh, euh, na muy demee day xaw a wute mhm. parce que ñoom dañuy ñëw nga leen salle bi sa peut contenir jusqu'à cent cinquante personnes je ne peux pas dépasser ñu ne la non mën na bañ a sax mat cent le jour J nga gis ils sont plus de parfois deux cent et quelques personnes ñu fi nekk di la bëgg a rey nag ak salle bi fa tàng parce que bu fekkee clim day tàkk nit ñi. Euh, dajaloo fa. Mhm. kenn ku nekk ak sa ñax. Ah, yaakaar naa ne waaw chaleur humaine boobu yaakaar naa ne seet dana fa jafe lool. parce que lu war a def juróom nga def fa fukk ak juróom. yaakaar naa pour nga am confort bi dëgg dëgg day jafe. mais est leen ko wax ne leen salle bi kat fii la mën a a def. bu fekkee ne ma un grand nombre dama la salle bi 150 personnes la mën a def. Mhm. mënu mhm. ko mënu ko dépasser. mais ne bu fekkee yaa ko dépassé la faute vous man sama devoir mooy xamal la exactement salle bi kat tant de sièges moo fi nekk mhm. tant de personnes la mën a jël matériel audio bi dinaa fexe benn instant ba mu nekk aux normes mhm. samay clim dinaa fexe tamit ba mu sedd guy samay table yi nga war a toog yi nga war a toog def benn instant ba dressé ko ba mu rafet mhm. dressé ko boo ñëwee yow moom da nga am satisfaction te loolu mooy suñu suñu devoir mooy comment satisfaire les clients parce que am na am na benn groupe groupe électrogène bu mag bu nekk suuf boo si moom mooy doxal boutique bi boutique bi nekk suuf ak ñun muy restaurant Eldassi de telle sorte que même bu loo leen mën a def moo xam conférence wala réunion et cetera bu tolloo ko bi mhm. bi nga xam ne moom moom ngeen fi am euh, matériel bi defar euh, maanaam mën na ne boulangerie bi mi ngi ci maanaam bi dafa pâtisserie bi. Mhm. Euh, cuisine bi yooyu matériel la yoo xam ne maanaam fii ngeen ko fekk ci réew mi wala sur la. équipe bi ngeen koy implanté fii est-ce que am nañ ci problème par rapport ak techniciens yi nga xam ne donc moom ngeen war a indi. Hmm. waaw man bi lii Dakar lañ ko jënde li ñu bari Dakar lañ ko jënde bien vrai que am na ñu jënd fii nii Touba mais important lay doon lu mel ne patron bi ñu liggéey euh, tubaa gi lañ ko jëndee Touba lañ ko jëndee à part bon comme que ñun ci kaw étage la nekk bu ñu koy doog a jënd yéegal bi xawoon naa métti. parce que noo mujj luyee mooy lenga xam nga lenga bulldozer yooyu ñoom ñoo ko yëgal man keroog dama tiitoon lool parce que matériel bi mu luuree ñu koy lenga di ko yëgal ci kaw moom keroog bi mu yéegee ba yëpp yéeg daal di laal alhamdulilah. waaw parce que xamoon naa ne charge bu loolu la ci man. voilà alors euh, relation bi am ci diggante Kourdi Kourdi ak resto bi. da ngay parfois xam nga euh, li nga soxla dara rek taf taf day bi mu jóge ci boutique bi ñëw ci resto bi dina soxla ci resto bi day jóge ñëw ban relation la. waaw relation waaw relation relation bu rafet la. Mm-hmm. relation bu rafet la parce que man mii di wax ak yow ci boutique bi laa njëkkee def naa fi un an yàlla def lii ubbi ñu teg ko samay loxo ci boutique bi laa njëkkee ci laa nekkoon. relation bu rafet moom moo ci am parce que boutique bi sama sama sama sama mag moo fi nekk Cheikh Kébé. ak sama xarit yi Issa Faye ak sama grand maam Thierno Gueye ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ŋànk ak suñu baay ak seen sunu nijaay tonton Bada ak équipe bi yëpp wax dëgg yàlla relation yi rafet rafet rafet kan am ak ak ak ñoom euh, du ñu defal dara ah du ñu defal dara parce que xam na ne kaw gi ak suuf gi benn la moomeel gi benn la liggéey bi tamit faaw mu am jàppalante suñu biir wax dëgg yàlla ñu ciy dox seen waar bu mat a mat a compréhension tamit mi ngi daw suñu diggante bu mat a mat donc bien vrai que parfois heure mënut a am parce que bañ ak làmmiñ ñoo ñoo mais lu ci mën a am rek après tout léppay rafet mhm. alors dañuy daal di jàll mais euh, waxoon nañ ci salle euh, publique bi mais il paraît que ci kaw tamit am na réserve foofu effectivement mhm. kaw gi am na am na terrasse terrasse moom moo fa nekk mhm. parce que parfois euh, comme bu buñ tollee ci yenn yenn yenn yenn yenn yenn kii léeg-léeg salle bi a tàng même bi clim bi day tàng tamit salle bi xaw a tàng wala boog nga ñëw bon bëgg lu gën a féex am nice vive nga yëg ci kaw jàkkaar euh, gis Touba gi yëpp loolu dafay rafet man ñu ci bari dañuy préféré yëg ci kaw am na ay chaises qui sont là-bas yoo xam ne si ci terrasse la bien décoré am na nga ko mën a toog confortablement bon lekk li ngay lekk wala xew li ngay xewlu wala boog waxtaan ak ki nga war a waxtaan ak après dem est-ce que visibilité bi am na par rapport surtout la nuit effectivement parce que euh, bo boo xoolee ci kaw da nga gis benn euh, lettrage lumineux bu fi bu fi nekk mooy bu restaurant Elda ci kaw panneau lumineux yi tamit ñu ngi nii taxaw fii ci bunt bi ak fii nii ci kaw j'espère que même boo jógee ba egsi ci ndaam préfecture ndaam boo xoolee ci kaw da nga gis lettrage lumineux bi di di et, donc sur ce euh, ñu ngi donc euh, à terme de l'émission euh, xam naa ne ñu ci des tey soo ñu doon maanaam jox dee maanaam maanaam boo ñu doon orienté ci ñi nga xam ne bëgg nañ ubbi resto wala boog ñi nga xam ne am lu yéene ñëw participer ci li nga xam ne moom mooy jàpp ci liggéey bi yan kàddu doon ak par rapport ak gestionnaire bi nga xam ne donc gestion bi nga xam ne moom moo fi nekk lan ngeen di maanaam dooleel ak lan ngeen di xelalaat voilà li may euh, li may li may dénk rek sama mbokk yi nga xam ne bokk naa ak ñoom métier bi mooy ñu xam que ni restauration moom lu métti la. parce que un sa vie familiale moom bu fekkee da ko bëgg a assurer moom mu ñu ànd parce que da war a fonctionner tous les jours et presque toutes les heures daanaka benn temps nga am muy temps de repos bi ngay xamante ne mooy sa kër nelaw tuuti pour mën a ñëwaat nekkaat. loolu loolu moom chaque jour da nga war a nekk parce que restaurant moom moo laaj loolu laajul génn bu bari laajul dem bu bari laajul tardé laajul nekk loolu moom laaju ko kon lu metti la lu metti la liggéey liggéey liggéey boo xam si yombut lu liggéey fonctionnaire boo xam si da ngay xëy heure waaye ci heure lu mën war a nekk toutes les heures parce que da liggéey suba liggéey bëccëg liggéey ngoon de huit heures jusqu'à deux heures matin parfois tu es obligé kon nekkul loo xam si lu yomb la deuxièmement tamit ci biir gestion bi nekkul gestion bu yomb parce que dafa métti gérer ay nit dafa métti gérer nit gérer nit rek dafa métti kenn rek sa jabar rek gérer ko dafa métti waxuma nag ñu boole la ak équipe boo xam ne ça fait plus de vingt personnes kenn gérer kon c'est pas c'est pas évident c'est pas évident ak euh, peut-être âge min ñu amee c'est pas évident kon lu lu lu jafe la mais nag lenn rek moo la ci mën a génne mooy gëm-gëm gëm na kat lii ma nekk dina ma cee war a réussir te nit mënu ma cee tere réussir kon lépp loo xam si laaj na ko ci coono ci jafe-jafe ci lépp dama koy dama koy braver ah jéggi obstacle yi mën a dem ci but bi nga xam ne fixé na. lan mooy secret Eldassi ah. <laughs> am na liggéey waaw parce que bon secret bi leen rek la. mooy wala secret kenn ko wax te leen rek la mooy lépp looy def na jaar yoon na jaar yoon mooy secret bi comme ni nga xam ne noonu loo ko boutique bi defee parfois nit sax ñëw ne waaye seen boutique bi man damay dem ba Dakar mais produit bi ma fi fekk dama ko fekk ci yeneen yeneen grande surface pourquoi mm-hmm. parce que liggéey boo liggéey boo gis mooy dangay ngay def de telle sorte que nga professionnaliser wu li ngay def nga teg ko ci yoon hmm, ginnaaw ba nga xamee ne moom cadre bi dafa nga ko pare parce que cadre bi lu mu rafet rafet rafet te euh, la ko war nekku ci dox waaw mi ngi mel ne loolu wolof naan catu ginaar bu fekkee da ngaa set ci biti te setu ci biir tamit bon da ngay da ngay da ngay set ci biir set ci biti c'est-à-dire que sa cadre ba mu rafet tamit ba nit ñëw na ah c'est bon fexeel da ta setu ko la ngeen di servir wala boog la ngeen jox mu nekk loo xam si tamit alors eh, ma ñëwaat ci ci gannaaw par rapport ak la salle mhm. est-ce que euh, toutes les cérémonies mën nañ ko defee euh, comme donc des mariages anniversaire genre waaw bu fekkee euh, bu fekkee mariage la moom benn yoon lañ ko mos a defee parce que xam nga tamit Touba la nekk mhm. dafa am ay réalité yoo xam ne si tamit faaw nga faaw nga faaw nga nga taxaw ci daal mhm. faaw nga taxaw ci bëgg-bëgg sëñ bi ci biir dëkk bi ñun loolu mooy suñu crédit boo xoolee boutique bi seen slogan mooy au service de la vie sainte au service de la ville saine c'est-à-dire que kon ñun génnuñu tamit slogan boobu noonu. bien vrai que on dit Elda c'est le plaid du goût mais au service de la ville saine parce que lépp loo xam ne si tamit maanaam c'est pas conforme ak réalité dëkk bi ak bëgg-bëgg seen bi buñ ñu dox. ndax ku ne mariage da ngaa musique wala et cetera. te loolu tamit bon ànd ak fii daal loolu moo tax mariage yi daanaka dañ ko supprimer léegi confiance la ñuy jël. réunion yi ak réunion d'affaires yi ak séminaire de formation yi. les anniversaires. anniversaire dafay xew. anniversaire dafay xew parce que y' a pas de budget. Mhm. Euh, euh, li nga xam ne moom mooy euh, maanaam tey boo doon def cherté bi. milieu bi na yomb na foofu rek la ñuy xam naa. waaw parce que tamit le problème en est mooy tey nit ñi tey bu ñu gisee benn bërëb rek dañuy yaakaar ne bërëb ba nam mel. waaw waaw noonu lay cher daal. gis-gis boobu lañ ci am. te mën naa bañ a demee noonu fii li ñuy jaay deux cent deux cent la commencé deux cent café deux cent yëg cinq cent et cetera te loolu moom foo dem presque peut-être loolu la koy jaay waaw kon mën naa la seeru yow li nga li nga bëgg boo ñëwee moom da am ak prix boo xam ne si vraiment prix bu convenable la def doo génn naan lee dañuy jaay dafa cher rek naan waaw tout à fait donc euh, euh, Abdoulaye émission jeex na. Euh, xanaa rek looy jeexalee par rapport ak émission bi ñu ko tourné fii waaw di sant di leen sant bu baax yéen waa 28 pro di sant tamit Soxna Ndiaye Sylla Fatou si la wax dëgg yàlla di nit ku baax nit ku fonk li muy def. nit ku bëgg liggéey nit ku ambitieuse nit ku réaliste parce que loolu tamit dafa baax ci dëkk bi. parce que dëkk bi tamit ñi dëkk ci dëkk bi ñoo mën a defar dëkk bi mais pas que ah, ñeneen ñoo jóge ailleurs di ko defar te loolu jàpp naa ne mi ngi ci bay waaram bu baax comme ni nga xam ne bàyyam bu baax ba alaaj daam si la ñi nga xam ne tey mënoon tuddee restaurant bi muy def na ko autant peut bi mu defar station bi danoon dan fii kan moo fi dëkk fii kan moo fi nekk ba nga koy defar ba nga koy def réaliser lu toll ni mais il se trouvé que au fil du temps gis na exactement ça vaudrait le coup kon àdduna noonu la da ngay da ngay da ngay réaliste da ngay ambitieuse de telle sorte que même nit ñi bu gisul la nga gis tim yow gisal la nga gis rek te fexe na lii kat dinaa ci dinaa jot kon moom ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax tamit ci kóolute gi nga xam ne am na ko ci ñun suñu modeste personne ba dénk ñu lii incha allah danañ ci góor góorgóorlu suñu kent laay kattan ginnaaw loolu ñoo ngi sant mboolem ñi nga xam ne bokk nañ ak ñoom liggéey bi parce que ni ko wolof di waxee benn loxo du tàccu ñu nekk ci kaw ci cuisine bi ñu leen di jaajëfal danañ ci cité Aïssou Diop dinañ ci cité Birahim Gueye ak euh, dibiteri bi Cissé pâtisserie bi Mouhamed euh, ak Babacar fay ak euh, ci biir salle bi ñoom faatu Babou ñoom Baye Sow ñoom Dibala hmm, ñoom ñëpp Fatou Dieng Maam jaara say ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax a baax buñ limee dañuy dañuy jum mun ñu sëpp ñëpp mais képp koo xam ne si tamit ñu la timit ñoo ngi lay ñoo lay sant ñoo ngi ziar bu baax tamit Omar mi nga xam ne moo nekk ci économie bi moom it wax dëgg yàlla di góorgóorlu bu baax di jàmbaat bu baax di ñu jàppale ci ci liggéey bu baax baax ñoo ñoo ko ci sant bu baax a baax a baax waaw grosso modo daal euh, bon loolu mooy li nga xam ne mu ngi ko jàmm. merci euh, merci beaucoup mbokk yi doon seetaan Béthio Pro seen émission découverte tey tey mi ngi dalaloon euh, Abdoulaye Kébé di gérant stage restaurant El Daci bi nga xam ne mi ngi nekk fii ci Touba ma Manane. jàkkaarloog euh, nga xam ne moom mooy ancien banque islamique bi waaye tamit li euh, fekk fi euh, maanaam comme ni mu ko waxee rek ci ndorteel bi. mën naa ne resto bi man ak ñoom partenariat bu yàgg ci station ba depuis donc ñu ngi koy nuyu de passage sunu xarit Cheikh Silla di ko nuyu bu baax a baax di ko gërëm parce que liggéey na ak moom ci li nga xam ne moom moo doon am ci wàllu tombola ci wàllu jeu concours par rapport ak carburant bi ak tamit des offres yoo xam ne doon nañ ko def yi nga xam ne moom mooy seen i client ñu jóge fa ñëw ci boutique bi ak Fatou Ndiaye si la comme ni nga ko waxee tey nga xam ne loxoom moom moo taxawal lii mm-hmm. waaye ànd ci équipe boo xam ne nii di déglu ay conseils yoo xam ne ñoo ko doy conseil comme ñoom Ablaye ñoom Cheikh également tamit ci boutique bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci euh, passage euh, parce que ku nekk rek jaar nañ fa liggéey moom ba tey ñu ñëw ci Eldaci projet mi ngi ñëw ak tamit euh, Silla et frère ci yi nga xam ne moom la mébét par rapport ak aux besoins de la ville sainte incha allah rabi loolu bu amee tamit 28 pro dana ànd ak yéen découvrir leen li nga xam ne moom la ñuy liggéey waaye tamit yemuñu fii ndax bientôt donc le grand magal de Touba ñi wax mbokki taalibe yi ubbil na leen seen i bunt eldas pare na ci lépp lu ngeen ko soxlaal muy ci conférence yi muy ci cérémonie bu mu doon waaye tamit muy ci service bi ngeen ba xam ne bëgg ngeen ko ñu indi leen ko kon nag duñ def lu di leen gërëm ñoom personnel bi yëpp yëpp yëpp yëpp Abdoulaye maa ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi si ni ñu ko yombalee ci caméra bi maa ngi àndoon ak Bekaay Ndiaye di leen gërëm bu baax a baax ci présentation bi c'était Sidi Diakhaté merci beaucoup et à la prochaine ci yeneen jotaay